C'est le retour de parquet pour ñi nga xamantene mom modi moo di Seras ak Amina Ngiran ñom nak ñu doon len topé rek doon wadjal ay euh, mbir dal bu sub ñaas ki fan ak ñett di bis bi ñu joxé verdict du procès bu Karim Wad ñu ne nak dañ doon dajalé dal ay ndaw fofu euh, foofule ca banlieue bu Ndakaaru ngir rek bu bus ba ñu yëngu-yëngal euh, ci buntu tribunal bu Ndakaaru kenn ci ñom nak di seen ñoñ Saliou Ba mom ñaawlu bu baax baax té giñ ci giñ ñenté mom moom bàcc Seras ak Amina Ngiran Euh, Saliou Ba mom dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Tidiane Dione. ñeu libéré ko wala ba ñu xam fa la fété mais ñëw nañ dem mu am retour parquet tay aussi ñu am bénéficier encore ben retour parquet légui nak bon am nañu gëm nañ dal am nañ ci yaakar ko xëy na incha allah bu subaa bu ñëwee soit dinañ ko libéré dal loolu am nañ ci gëm-gëm bobu dal am nañ parce que lo xamné amul yow nga soupçonné nit ki wax ne ay ki dañ ko abla Wade ko wo mu ñew mu jox ko xaaliss pour mu recruter ay nit pour saboter procès Karim Wade Bathie dafa mën a saboté procès Karim Wade wala mu recruter ay nervi pour ñu taal dëkk bi jaxase ko Bathie moom a koy taal loolu ñu wax amul mais loolu moo amul ma leen dama leen wax en âme et conscience xam loolu loolu si boppam moom moo amul moo nekk d'humiliation moom lañ bëgg lii c'est de l'abus de pouvoir te nag li ñu leen xamal mooy leen rek que ne justice moom balance la te yaakaar naa ne elles sauront prendre la bonne décision.